jàpp ne hmm, ki ëpp ci li muy communiquer ci Sénégal Idriss Seck la. waaw ah, yow loolu soo ma dégloo ma wax ma noppi communication la Idriss Seck wax Idriss Seck kilifa bu dara amee danaan tekk ba xam lépp nu mu demee mu doog a àddu lii dana ci wax falaa budda dina ci wax li mu manul mooy ci niveau bi mu nekk mooy def mbirim làcc mu génn di wax. ban niveau lu Idriss Seck nag ñu un acteur politique xam nga tamit da ngeen di jël ni di ko ngandal kilifa la terme yooyu terme yooyu c'est bien beau mais Fall Fall Fall am na terme yoo xamante ni tamit Birama mën nga ma dégg yow kilifa soo ma dégloo rek soo ma dégloo rek dinañu dinañu dinañu déggante waaw léegi dina wax musul bëri wax dina wax léegi bu waxee fekk kan lay waxal après booba léegi léegi il faut nga il faut nga mën a déglu ah, boo ma wooyee fii yow du sa opinion sama xalaat nga may laaj man sañ ngaa bañ a jàpp sama xalaat waaye boo ma laajee foog ma wax sama xalaat. waaw waxal. waaw Idriss Seck li mu war a def def na ko mooy ñu woote candidature woote parenage mu dem wuti parrainage am déposer am di xaar campagne électorale ubbi mu jàkkaarloo ak sénégalais dem ci ñoom wax ak ñoom ci lan lay yéene Sénégal. bu nu eggee ca ca pàndaw ba ñu voteel ko wala ñu bañ ko voteel moom loolu mooy cëram ci loolu la nekk ba ndogal dal nu ba tooxi doona dal nu tooxi doona ji ñu dal diggante samdi la ak dimanche ak démb altine mais lu ci nekk am na séquence boo xamante ne nii xamoo fu mu mujjee xamoo fu wànneen di mujjee ki bëtam honorable nee na la démb ci guddi nelawut sax ban heure lañ jógee assemblée nationale kañ la ñu voté bi boo dee kilifa nag da ngay bàyyi ba. jaam ji dem nga toog ci à dire que vous ne m'avez pas compris. le 11 le 23 juin 2021 Idrissa Seck bokkul woon ci ñi jaxase assemblée nationale. am ci journaliste yu mel ni yéen. ñu ni Idrissa Seck a raté le train de l'histoire fekk ko sax Sénégal. 23 juin. 2011 nekku fi woon loolu koy dafa leer. bi mu ñibbisee. dafa wax dani ku sabab tabax réew ku sabab defar réew doo bokk ci lu koy taal. mais de mars. Euh, cest juin juin il faut nga xam nit il faut 2011 kenn jaxasewul taal na assemblée nationale la preuve anaka bi Macky Sall ñëwee je parle sous la réserve de. juin 23 juin si si. fan la ñu taal ci assemblée non mais ça je vais vous expliquer bi 23 juin ñëw hôtel des non hôtel des non hôtel des députés dañ ko taal. c'est-à-dire hôtel des députés non dama ni. violence yi am 23 juin ñun ñëpp gis nañ ko Idrissa Seck li ko ëppal yitte du ak paloom wala ak waxam fu mu toll. li ko ëppal solo mooy jàmmi Sénégal mais nag loolu bu ciy wax moom ak niveau bi mu am bul ko xeebal niveau man xeebaluma ko. c'est un homme d'État rompi à la tache lii ñu doon jëm kenn ëpp ko ci expérience kon moom sañ na bàyyi et puis Idrissa du débat bi xam nga man su ma ñëwee fii man man sa mooy sama kilifa réew mi laa bokk mais damaa am man xam-xam ak gis-gis ci lii am man naa bokk ak bu sama kilifa man naa waroo ak bu sama kilifa mais man damaa am xam-xam ci lii xew senegal bu amee kenn ku nuy waxal kenn. xam nga yow porte da nga bokk. ci cellule de communication déglu ma rek. da nga bokk ci cellule de communication parti xam nga soo ma dégluwut. Birama boobu ba léegi kay ñu ngi lay déglu yow tamit. Euh, su amee kenn ku nu war a waxal tey Sénégal ku nu war a joxoñ baaraam Macky Sall